laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah ci atum 1975 dajeek génnuk àdduna Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ci la Cheikh Omar Diop gane àdduna ci diggante ñaari waajur yu baax Cheikh Omar Diop wàllu yaayam ay sërif lañu wàllu papaam ay xaafisul quraan lañ waajuram bu góor sëriñ Njaga Jóob nekkoon muqaddam bu mag ci tarixa tijaan wóllërante woon ak sëriñ Abdou Aziz Sy Dabaax ak El yi bu saaxoo génne àddina moom sama waajur bu góor boobu sëriñ Njaga Jóob maa Abdou Aziz Sy yebal na doomam Maodo muy taawam mu ñëw ba ci kër ga di jaale si bi mu ñëwee euh, wax fa benn wax boo xam ne alhamdulilah gën naa dalal suñuy xel ci li nga xam ne moom lañu bàyyee ci ay secret ndax wax na ne seen wayjuru góor bi jëflante naa sama sama papa muy am Abdou Aziz Sy jëflante boo xam ne ci wàllu secret tur boobu tur boobu mooy secret boobu moom sama wayjuru jër euh, ma Abdou ut ut na ko fu nekk ut na ko fu nekk mais bi mu ñëwee ci sa papa muy Serigne Daga Diop góorlu yàlla bi tëdd nii ci foofu noonu la ko yàlla jotalee foofu la amee secret boobu. Serigne Daga Diop moo doon kii nga xam ne bu dee ci wàllu xam-xam la boo demee fekk fa mu jàng téere yëpp ba goreel ko. bu dee ci wàllu firi alxuraan la boo demee fekk mu nekkaanum firikalu alxuraan boo xam ne ku déggoon alxuraan la bu dee ci la mboolem këri diini yii nga am na ak am na ak ñoom relation. Serigne Diaga dafa doonoon waa nit koo xam ne yàlla yónnent ba ak lislaam kese moo ko ñor Serigne Ndiaga Diop bi mu nekkee ci daara ji tem na ba am lu ñaar fukki at wala fukki at ak lu topp ay way juróom xamuñ fa mu ne ndax moom li doon na àddunaam mooy jàng rekk ci ndawam Omar Bun comme ni ñu ko daan woowee nekkoon ku teel a ràññeeku ci liggéey yu bari daan jàppale ay waajuram ci njàngam mu nekkoon it ku jàmbaar njàng mi su ko joxee darsu bi buy bind ba pare foofa la koy teg dem nay woonam su ñëwee ne aywa ñëw leen tari ma ne ko tey nga dee mu ñëwee papa ne aywa mu tari ku la waxal mu ne ko bëgg ma ba nga koy bind laa waxam moom la jàngi li mu jàngi nii laa jën nit ñoom Cheikh Diop boo xam ne papa dem na jaw jumaa euh, fajar buy dem rek daal nañ dañuy teel a yeewu tëdd nañ di nelaw waaye boo xam ne papa ñëw na ñoom moom moo leen di njëkk a waree dugg si tey la ñuy dee bu ñuy commencé ah, jàng jàng jàng jàng kii moom daaw ko daf ko daan duuru duuru duuru duuru ba mu ne ma yaay ndax kii sama papa la. ma ne ko ah sa papa la de bu ñëwee ne ko kaay nga yor yarba ba de suy toog mu tari ko mu ne waa kii man kii de jaaxal na ku ko doon waxal mu ne la ah, ñun de waxal nañu ko mu ne ko jël yi dem wéer ko dem na yoonam. bu ñu noddu noddu gu njëkk la leen yee ñu jàng ba bër set ñu dem tool suñu wàccee tool jàng. bañ julli tusbaar ba julli tàkkusaan gontiwaat tool suñ wàccee tool jëlaat nañ àlluwa yi taalaat duuda ji jàng sama papa dëddu àdduna bi mu dëddoo àdduna Cheikh Omar nekk Ndofaan di daw di dem di ñëw euh, dawal na watiir fii euh, def na ay jaar jaaram toog ba mu yàgg mu jigéen ko fii dem Dakar di liggéey 1991 waaye juróom bu góor génn àdduna ñu teg ci ñaari at mu fekki magam bu góor di seen taaw fii ci Dakar ci unité 7 Parcelles Assainies ci atum 1994 ñu jóge fa dem site Bastos laata ñuy dem Dalifort ci atum 1995. man maa dem ba Ndofane jëlee ko fa ñu ànd ñëw Dakar bi ñëwee Dakar boobu mu ngi fekk maa ngi dëkk unité 7 ci Parcelles Assainies fa lañ dëkk. yaakaar naa ay weer lañ fa dëkk jóge ko fa dem cité Bastos en 1993 ba tey ci fin 93 80 lañ jóge ko cité Bastos dem Dalifort. jamono jooju Dalifort nekkoon dëkkuwaay bu doy waar waaye Cheikh Omar Diop ci njàmbaaram ak bëgg yàllaam fexe ba génne leen ci lëndëm dugal leen ci leeru fayda Tijaniya. ñu des di bëgg yàlla subhaanahu wa taala. Baye Omar Diop kilifa la boo xamante ne mënuma takk at bi ma ko xamee waaye xam naa ni daal diggante quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept boor yooyu la daal bu mu fiy dëkk nga xam ne jamono jooju moom rek moom moo fi nekkoon taalibe Baye moom rek lañ fi xamoon si koo xamante ne li yi di wax naan na si kaasu leer yi. dëgg-dëgg man damay wax ne lu fay du am téléphone. Dalifort lu mu am si faydu rek si buntu baay Omar Diop la ko amee loolu moom yàlla dogal na ko. Dalifort Dalifort buñ déggee taale euh, nekk ay taalibe Baye ci Cheikh la moom moo fa njëkk a doon taalibe Baye taal fa faydu moom ak ku ñuy wax Omar Ka ñoom ñaar ñoo fa nekkoon woon mu womat Omar Ka ba def ko taalibe Baye. ñun bu muy dëkk Dalifort ñun ñi ñëpp nekk buñ taalibe Baay ay soppee Baay lañu ñu woon rek yoo xam ne dañu bëgg Baay léegi nag buñ doon ànd ak moom si ay programme wala ay daayira yu mel noonu da ngay gis ne bu fekkee daayira yi ñuy def ci biir kër yi la sax mooy jënd wargam jënd suukar jënd lee jënd ay miskit jënd tàngal ko defee loolu la ñuy xewloo ci biir daayira bi bu fekkee yi ñuy génn la daanaka ñi nekk ci oto bi yëpp moo leen di paasal. ci atum 2003 ginnaaw bi mu defee juróom-ñetti at ci Dalifort Cheikh Omar dem ginnaaw nga xam ni foofu fekk na fa lu raw li nekkoon Dalifort. fekk ni ginnaaw raay la na lool wax dëgg yàlla gannaaw raay gannaaw bu fa nit ñi may dem guddi wala ñi dem bëccëg ah bëri na lu ci Cheikh Omar def. ku xam ginnaaw raay bu njëkkoon xam ni ndaw ñi ci agression ak banditisme la lañu doon dund ba tax société bi rejeté leen ndaw ñooñu la sëriñ bi jël defaraat leen ginnaaw bi mu leen tarbiya samp fa ab daayira tuddee ko Nourul Huda. yëpp xale yi ci quartier bi yëpp Cheikh moo leen jël dugal leen ci daayira di leen kii xale yoo xam ne ñii dañuy gees ñii di tux ñi di def leneen di leen génn ci loolu. di leen formé daayira bu mu ñëwee ginnaaw raay lu bari sensé na ko fi lu bari jindi na ko fi ci xale yi waaw Cheikh Omar yar lañ ko xamal teggin nañ ko xamal ak xam-xam. njëriñ rek laa ci gis parce que man ku ma xamoon démb xam ma tey da xam ne kii soppeeku na ci lu bari soppeeku na ci zaahir soppeeku na ci baatin waaw parce que moom moo tax ñun ñu am jomug liggéey bañ naka ba kii ñëw di def ak man interview bii sax sama place la ma fekk. sama place dama fekk may daan dool te loolu yëpp moo ko def si ñun parce que ci moom lañ ko gisee bu fekkoon dafa nekk sëriñ bi nga xam ne day croiser bara ne indi leen ma adiya kon ñun du ñu tal sax toog benn place. ñun bu ñu jotee ci Maulana Cheikh Ibrahim mën a dund mbëggeel ci Cheikhuna Tidiane ba jotee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mën a xam kan mooy suñu borom kooku dañ koy sante ki nga xamante ne bii tey moom moo fekk jeunesse bi ci lëndëm fekk ñu ci précarité. fekk ñu ci ci ci ñu désordonné wu woon mu jël ñu réorganiser waat ñu def ci ñun ba ñu mën a nekk ay nit. xamante ak léegi yàgg na ça fait des années depuis 2003 ba léegi ñoo ngi xamante moom fële ci ginnaaw raay ñu bokk si ay taalibeem yu mag ñi nga xamante ni euh, sekk na ñoo moom kóllëre bu yaatu mu tar bi ñu ci loxoom moo ñu tarxiya moo ñu tarbiya euh, yar ñu wax dëgg yàlla doxal ñu. seeru xamal ñu suñu boroom. man li ma mën a wax ci moom bari na parce que ñun ñii di ndaw ginnaaw raay moom moom ñu defar ñun instant bi soxlatuñu dara du du suñuy kurus ak yàllaa yonent bi loolu la ñu Cheikh Omar Diop xamal te bu ñëwee ginnaaw ba tey moom moo ñu defar minute bu nekk fekk nañ ko këram suñu kaa fekk si lu neexul yàlla. bi moo nekk nit koo xamante ni ginnaaw raay bi mu fay ñëw xataa muy man muy samay moroom muy ñëpp. bu yàlla deful woon ñu jokku ci moom wala ñu xamanteek moom heure bii leneen la ñuy wax ndax bu jamono boobu ñun ñu ngi ci leneen. ginnaaw raay wax dëgg yàlla suñu la ko musaan wax da tiit da ngay am problème man nan laay def ba dugg fa wala nan laay def ba jëflanteek nit ñi foofu moom mu ñëw fa si jamono yi nga xam wax dëgg yàlla ñu ñëpp ay ndaw la ñu woon toll suñu diggu doole nekkoon si ay xat-xat yi nga xamante ni ku nekk xamoo woon foo jëm yaa ngi gëlëm. même boo itteewoo yàlla boo bëggee yàlla tamit munoo ko woon am ndax amuloo ku la naan yàlla ngi wala yonentoo ngi kon suñ moom si jamono jooju la ñëw vraiment redressé fa ndaw yu bare bëree bëree bëree bëri. juróom-ñetti at la defaat ginnaaw raay tasaare fa faydu bokk ci ñi fa njëkk taxawal gàmmu. daayira ba booba metti na ba muy nekk kër Aziz Diaw gi booba metti na lool booba daayira bi demewul noonu. waaye rek tubaarkàlla mu bëgg ma fonk ma lu muy def na yaa Mariama ba bu gaamu ayee ginnaaw raay man lañuy woo man maay def yi yëpp waaw ca kër ka asu jaw ko fa Cheikh ñëw fekk ko fa ak rakkam yu góor yi yëpp ñëw fekk ko fa ak mbaaxam a waral loolu ak yaatoom ak diineeg lislaamam ci atum mission jeex ginnaaw raay Cheikh Omar génn fa dem Cité Fadia fii nag fii la fësalee wàllu fajam ak ñaan yàlla di ci dimbale jaamu yàlla yi ci biir réew mi ak ci biti réew ànd ak loolu yépp di wéy di liggéeyal Cheikh Ibrahim Niass ci lu feeñ ak ci lu nëbbu ci njabootam yi ak ci taalibeem yi saa si turu Cheikh Omar Diop romb na frontière yi ndax ay jëfam yu baax nitu yàlla xàqan ku dëggu ku tabe jaamukatu yàlla doon nit référence ci ndaw yi tey. Seulement Diop macha allah phénomène la Seulement Diop phénomène bu spécial la ndax am nañu chance côtoyer ko am nañu chance ànd ak moom ay fan def ay du ay ay ay ay tournée au sein des Muqaddam da Baye mais seel naa ci moom ne du sonn te du daw du dellu ginnaaw te c'est un homme engagé. jaamu pays bi la jaamu Cheikh Ibrahim la koo xam ne jamono bu Cheikh Ibrahim xewlee. moom pare na fàtte na boppam koo xam ne ñëpp seede nañ ko ci mën a xidma ñëpp seede nañ ko ci mën a joxe alalam ñëpp seede nañ ko ci mën a sànq waxtoom ngir liggéey Cheikh Ibrahim wirdakat la surtout ci guddi xam naa ko ci ay barab yu fasanti ko yoo xam ne saa su ne dafay toog di wirda guddi ba bët set ma di ko gis wala may nelaw di yeewu di ko gis muy toog di wirda guddi ba bët set daan na wax benn baat taalibe yi man ku yàkkamti du ànd ak man te wax jooju xel lay laaj sëriñ da ngay toog ak moom dalay lay wax lu ñëwagul li naan borom xam-xam da am këstu da ngay am basira sëriñ lum la wax fayee ka bor te xam ne loolu luy ñëw la. kon nag ñun amuñu kudul cheikh bi amuñu kudul cheikh Omar Diop amuñu kudul sëriñ bi te li ëpp solo mooy képp koo xamante ne bi say wayjuru deret gërëm nañu la. say wayjuru ruuxu gërëm nañu la muy ki nga xam ne mooy wayjuram bu jigéen sant na ko gërëm na ko ki nga xam ne mooy njabootam sant nañu ko gërëm nañu ko képp ku muy jëflanteel ci wàllu àdduna sant nga Cheikh Omar Diop gërëm nga Cheikh Omar Diop ki nga xamante ne bii mooy mooy mooy wayjuru ruuxam xamante ne bii Cheikh Mouhamad Nazir Ibrahima Niass mooy ki ko joxoon ijaaza njabooti Cheikh Mouhamad Nazir gërëm nañu Cheikh Omar Diop waa kër Maulana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima ñas waa Medina gërëm nañu Cheikh Omar Diop. am joom te du mer mu nga ko def lu nekk te doo gis Cheikh Omar Diop mer Cheikh Omar Diop nit la koo xam ne nii euh, mun na jël nit defaraat ko ba nga xam ne nii bu génnee da nga yaakaar ne kii am na diplôme bu ñëpp soxla te fekk na ne am mus sa sax toog baawu école. ku bëgg yàlla la ku yàlla jaral la koo xam ne. dafa mus di fuuglu yàlla doy na rek ci xadara bii passé xadaratul jumaa bi mag bii nga xam ne moo amoon ci terrain akapes nga jël sa oto oto boo xam ne tey ku ko yàlla mayoon fu ne ngay xalaat yóbbu ko waaye doo ko soppi kalandu fu ne nga dugg ak moom ci biir Dakar ak li ko wër ngir yëgle xadaratul juma boo xam ne sa alal nga jël def ci ñun ñi nga xam ne ñoo bokkandi ko organiser xam nañ ci dara lépp loo fa gis muy taar jëmee ko ci motaar yi jëmee ko ci lépp loo fay gis xaalisam la jël yëkkati def ko ci ba pare ànd ak yendalul fanaanalul xidma kenn mënu ko ci ci pays bi te ñi ko ëpp alal rek a fi ne waaye moom mën naa jël alalam ak lum seer seer ak lum jafe-jafe jël ko di ko xidmaal Cheikh Ibrahim Niass. Ah, Cheikh Ndor la ndax yàlla dana def nga bëri ñoo bokkal ndey ak ñoo bokkal baay. am ñoo ci xaritoo mais am ñoo xam ne xaritoo bi xaasatan lay nekk maanaam xaasa lay ne xaritoog jagleel lay nekk man ak moom mu bépp xaritam boo xam ne am na ko présenté na ma ko xam naa ko bépp xarit bu ma am présenté naa ko xam na ko ay taalibeem xam naa leen samay taalibe lañ samay taalibe xam nañ xam xam na leen ay taalibe lañ dem na ma nga xam ne gàmmam dañuy wax ne sama gàmm la sama gàmm dañuy wax ne gàmmam la loolu yëpp ànd bu rafet la ak euh, baax na nit nit loolu dana yéem ñu bëri parce que bëri nañ ñu bokk ñu bokk nit nekk bàyyi du ngeen juboo surtout ngeen bokk maanaam yoon wu ngeen aw waaye loolu yàlla musal na ma ci sama diggante ak moom